asalaamualeykum eh, Jamano Media ma ngi nuyu askan bi di len gërëm di len tatagal di wax rek ne Africa Liberation Day moy bési Africa bi mu ngi wone Afrika Africa si aduna bi ada Africa naksi ci aduna bi réerewul kenn réerewul Afrique am na solo lool ci biir Afrique waaye nag suñ noteel bi ñu notoon ak amewuñ bi ñu fi amewoon mu ñoo ooyee colonialisme tax na bi nga xam ne dañ nasaxal suñ jëm kanam ñu ngay vippu nag afta bi ñu amee suñ boppa moo tax nag am sa boppa lim tekki mooy yore sa boppam mun sa boppa kon nag Afrika nañ leen taxaw amee suñ boppa mun suñ boppa amee suñ boppa mun suñ boppa loolu la ñu waree indépendance indépendance bi nekkul rek ne daga amee sa flag ekkati ko mu deg si kaw mun loo dundal sa boppa mun loo amee sa boppa amul solo kon nag maa ngi ñaax doomi Afrika te réewi Afrika nañ leen taxaw suñ boppa mun a ame suñ boppa mun a yore suñ boppa pare tamit fexe luñ préparé suñ doom yi jàngal leen si kàddu nasaraan waaye jàngal leen tamit si kàddu africain jàngal leen tamit si si eh, cosaani Afrika waxoon na ko fi te dinaa ko waxaat ku bàyyi sa cosaan doo dem kanam wala dem kanam dina la jafe kon nag nañ leen taxawu Afrika nañ leen taxawu suñ bopp mu ngi nii dund problème la si ñun parce que fagaro wuñ suñ fagaro woon tey xii dañ dañu jàmbat xiif suñ taxawoon ni ko maam yi daan defe di am ay gaaden di am ay wanag ci gannaaw di fa def ay ñambiyee pataati di yar ay béy di yar ay ganaar di yar ay kanaara di def ay tool tooli dugub tooli bene tooli findi kon tey ni konoon noon duñ coow maala bu sew si réew mi dégit kon nag nañ def nag nañ daan defee ndax ñu mun a suqali suñ koom-koom ndax ñu mun a yore suñ boppa ndax ñu daxafi xiif daxafi xiif maalo wàññi ma price maalo rek du mun a indi du mun fii lii mun a indi daxa xiif fii ñu pare pour ñafe liggéey lu ñoo dundee ba pare soppi doxin suñ lekkin maalo mi rek nekku fi findi baa fi ñaambi baa ngi fi ñebbe baa fi dugub baa fi ak yeneen a yeneen fuñ jaar soppi doxu ci suñ lekk pare ñefe pour mun koo eh, bey mu bari ci réew mi ñu lekk ci benn des ñu mun koo jaay bitim réew loolu suñ ko mun ta def kon dafa mel ni suñ indépendant matagut dëggit mu ngi ni engrais bi ñu mu ngi melni tulé malé ku nekk ngay wax engrais bi engrais bi engrais bi ngi ko jagal naka la suñu daan def tos lañ daan jël nga am ay nag pupi beyi pupi xari sa ngeen di ak pupi xari moom la jël di sotti si tool yi waaw so dajale sa ñaxami ba pare bàyyi ko taw bi ñëwee yëpp nopp nga jaxase ko ci tool bi rijji ko nga amaat tos tos bi ñoo oote nii naa dafa seer government nii government nele tos ko tos boobu ñeneen ne ko jagal ñu ko jagal na ñu ngi ci làmbi xeex moo tax nu leen neex la ñoo jaaye waaw te fi mu nekk àdduna bi soo ko seetloo chemical fertilizer moom la ñoo xëccoo ni soo gisee fi mu nekk suñ bay dematut fen parce que tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo jënda wala yeneen bitim réew yi nga xam ne ñoom ñoo jënda ñoom lu ñoo oote o liñ bëgga mooy organique li ñoo ooyee organique products mooy njiyeef yi nga xam ne defuñ ci benn chemical fertilizer liñ fa def rek mooy eh, li ñoo ooyee natural fertilizer mooy organique fertilizer ñun nag ñu nekk dañoo xëccoo nii ak wax yu bari bi yëpp chemical fertilizer bi la parce que dañ ñu ko miinal waaw tubaab bi dañ muus dañ ñu ko miinal pour toujours ñu jënd si ñoom moo tax fu mu jaar mi tey ñun lii nag lu ko soppi mooy fu ñu jaar soppi doxin di def nañ daan defe suñ fertilizer ñun ñoo ko war a defaraat suñ boppam waaw waaw suñ ko mënut a def rek. dem di nga gis ne coono bi di génn si ñun waaw jërë jëf waaye yal nañ ko fekkee déwén Afrique yal na gën a gën a gën a dem yal na yàlla soppi xol yi dugal si li nga xam ne mooy mun a yóbbu Afrique waaw lii rek nag mooy mun a yóbbu Afrique taxaw suñ boppa mënaat suñ boppa waaw loolu rek la jërë jëf